booloo ak joxante loxo fii ci commune bi la ñun doomi Médina yi diggante commune bi ak état bi loi bi moo nekk seen diggante loi bi mooy lan li loi bi wax maire wàccoog moom li loi bi wax sous-préfet wàccoog moom loolu mooy seen diggante unité bi nag ak ànd bi ñu ak ñoom ñii la te rafetlu nañ ko gannaaw bi ñu santé président Macky Sall gërëm ko ci lii mu def ci wàllu denrée yi mosulaam moo tax mu xaw a am ay jafe-jafe waaye mair yi ñu ko denc ci liñ ci gis ñun suñu commune la xam moom la wax dara ñaaw ci yëpp rafet parce que ñëpp ànd nañ def ko diggante maire sous préfet li wax mooy objectif bi maire bi am ak commune bi mooy ñu génnewaat lu war a mën def 4000 kits bu ko tegee ci yoon préfet teg ko ci yoon war nañ cee mën a jot ñuy wax nag membre conseil municipal bi na ñëpp ñëw wax ak seen maire ñu ànd def liggéey bi comme ça ñu mun cee jot mais ci respect cëru ku ne contrôle de légalité bi préfet moo ko moom décision politique bi président de la république bi muy jël ordonnance bi pour yombal leen ko maire yi la visé donc maire ñoo moom loolu conseil municipal conseil municipal am na cër mun na ko exercer waaye dafa am kilifteef boo xam ni moom la ñeneen ñi ñoo ko yor yàpp yàpp lii mooy Médine